gan gi ni nga ko waxee Youssou Diallo jiite Club Sénégal Émergent nekk itam PCA bu Sonacos SA sëñ bi Diallo ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey waaw jërëjëf eh, soxna Fatou maa lay fay et puis di ñëw ci Rewmi FM di wax ak seen auditeurs mhm. def nga jàngat bu am solo wax ci ni euh, Sénégal euh, mi ngi wéy di doon démocratie euh, te jooje jamono li ñuy naan ceinture militaire dal di ñuy wër alors ci ban xëy na jàngat ak ci yan ponk nga sukkandiku ba yegg si ci xalaat boobu. waaw maa ngi lay maa ngi lay gërëm effectivement kooku jàngat boobu kuréel bi ma jiite. tuddee club Sénégal émergent nga xam ne ay xeltukat ñoo ci nekk mais ñoo xam ne ñu jege nguur gi et di ko xelal ci yenn e, mbir yi et ñoo def jàngat boobu jàngat boobu nag li ko indi ñaari mbir la benn bi mooy gis ngeen élection yi biñ ciy jublu et njort xawoon na ñaaw ci élection yi surtout ci wàllu lu mel fitna parce que yéen a ngi fàttaliku ci mois de mars ba ñu génn ci deux mille vingt et un am na jafe-jafe ak euh, yu fi amoon et surtout ay jàppanteeg jàmmarloo et yu taratar yoo xam ni foogoon nañ ni sax xëy na suñu démocratie bi et bu doon euh, euh, lu ñu samp mel na ni mu ngi doon yàlla mm-hmm. et raxte dolli bañ ci génnee aussi gis nañ ci réew mi daal ay mbir yoo xam ne xawoon na indi ñaaw njort ci loolu rax ci yi ba ñu dajan euh, ba kuréelu politique yi dajee bi leen président woowee et ñu waxtaan ci wàllu élection yeeg euh, système électoral bi am na loo xam ni jotoon nañ ci d'accord waaye nag am na leen ci opposition yoo xam ni euh, xawoon nañ ko di ŋàññi et ragal ne loolu jur élection yoo xam ni jaar ci yoon ba nga xam ni bi ñu jubee élection yi am na sax ay jàmbur yoo xam ni particulièrement di ay nitu diine di ay nitu ñoo xam ne ñu ngi bi ñu daje woon def benn kuréel bu ñu tuddee CUDIS defe naa te euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si bu Tiwaawoon jiite woon ko jiite ko et ñu jotoon euh, wax daal ci charte pour la non violence et loolu nag euh, juróon ñaaw njort ba ñu ragaloon ne xëy élection yi dina am fitna xëy na mën na ñàkk jaar ci yoon et mën na jural réew mi daal loo xam ne kenn ko woon waaye gis nañ ni bañ ca demee élection yi macha allah jaar na ci yoon am na ci jàmm ak salaam leer na résultat yi daanaka ba ñu defee ñaari waxtu ba ñu tëjee bureau de vote yi daanaka euh, ci euh, xereñu ak euh, mën liggéeyu waa presse bi ak société civile bi jotoon nañu xam tendance mag yi hmm. suba sa aussi altine ba nit ñi dem nañu liggéey ci jàmm ak salaam Sénégal wane boppam encore ni démocratie bu mag la hmm. Euh, non seulement ci ay institutions waaye nag euh, askanu Sénégal euh, gëm nañu te bëgg nañu démocratie mm-hmm. boobu mooy bu njëkk bi ñaareel ba mooy fan yi gis ngeen li xew am na coup d'état boo amoon ci Mali def naa léegi ëpp na lu ëpp na at mm-hmm. et bañ ca génnee defoon na ne sax xëy na jeex na jéem a régler problème Mali waaye ñu gis ca Guinée Alpha Condé bi ñu faloon am coup d'état bu fa am daaneel ko et fan yi ñu génn Burkina Faso lu coup d'état am na fa ay militaires ñëw ci pouvoir bi et Guinée Bissau bi nga xam ne sax presque mu ngi ci biir Sénégal daanaka am na tentative coup d'état boo xam ne am na donc nag muy wane ni eh, yaakaaroon nañ ne xëy na démocratie law na fépp ci Afrique surtout lu ñu wër et eh, ba nga xam ni gënoon nañu am yaakaar mm-hmm. waaye daal dafa mel na Sénégal dafa mel na eh, benn bëñ bu weex ci biir gémmiñ la Euh, ci ci sous région maanaam loolu ñuy wax exception démocratique Sénégal firndeelaat na ko. ba nga xam ne euh, ñun ñu wane ni il faut que Sénégalais yi loolu ñu am ñu xam ko et xam ni démocratie Sénégal li mu am li ëpp solo li koy jaay ci bitim réew ak ci àddina si bi du pétrole du or du gaz du leneen waaye démocratie ak état de droit bi nga xam. moom la ñu am ñu doon nag firndeel loolu mhm. et di ko gën dëgëral ba nga xam ni loolu nag bu amee du nguur gi du opposition bi nguur gi la opposition bi la askanu Sénégal la ñoom ñoo jàpp ci loolu ba démocratie bi mën a toll foofu foofu mu toll mhm. ba nga xam ne daal ask warugar ku nekk mhm. ci réew mi mooy gën a jàpp gën a dëgëral ba nga xam ni e du ñu joxe nguur wala ñu koy jël ci violence coup d'état ak yu mel noonu waaye fii réew mi euh, carte moo koy joxe te carte sénégalais yi ñooy daje. Mm-hmm. seet ka leen doy wala ña doy ñu fal leen. loolu am na ci amin bu rafet mhm. ci élection yi nga xam ne moom la ñu génne loolu daal lañ bëggoon mandargaal ci ci wax jooju ñu wax mhm. alors ci jamono yu lëndëm yooyu ngir Afrique nag ci la président Macky Sall euh, ñu tabbee mu war a jiite UA euh, euh, ci benn at lan nga jàpp ni Afrique tey moom la mun a xaar si fu président Macky Sall boobu mu yore tey ci Union africaine waaw waaw foofu damay dama koy rafetlu di ndokkeel président Macky Sall et di ndokkeel Sénégal yëpp parce que Sénégal dafa nekk réew mu ràññeeku ci wàllu Union africaine et ba nga xam ne bañ koy sos sax defe naa ne Léopold Sédar Senghor nga xam ni yan na ko yàlla yërëm e moo jëkkoon nekk président Sénégal amoon na fa taxawaay bu rafet ñi ñuy wax les pères fondateurs maanaam kilifa yu mag yi sosoon organisation de l'unité africaine ñu ko doon wax OUA moom ak ñoom Haïlé Sélassié ak ñoom Assane ak ñooñu ñoom ñoo ko sosoon te Senghor amoon na ko taxawaay bu rafet ñu ngi fàttaliku rôle bi mu joué woon ci conflit Israël ak euh, ak Palestine ak arab yi ñu ngi fàttaliku rôle bi mu joué ci libération euh, réew yi nga xam ne ñooñu waroon di nekk ay colonie portugaise notamment Guinée-Bissau ak euh, île du Cap-Vert nañu aussi taxawaay bi mu amoon ci mouvement de libération yi en Afrique australe ñu maa ngi fàttali ni Arafat ak ñu bare ñu nekkoon ci mouvement de libération yi en Afrique ay passeport sénégalais lañu amoon. Mm-hmm. ñaareel ba mooy Abdou Diouf gis nañu rôle bi mu joué aussi ci libération Nelson Mandela ak euh, libération Afrique australe muy rôle bu am solo te lay Wade bi mu ñëwee aussi gis ngeen taxawaay bi mu amoon ci euh, ci mbirum. Euh, organisation unité africaine et plus tard union africaine particulièrement ci wàllu koom-koom parce que moom moo initié li ñuy wax NEPAD bi moom ak Thabo Mbeki mm-hmm. waaye aussi li ñuy wax programme et projet grande muraille verte kooku aussi projet doomu Sénégal la mm-hmm. président Macky Sall et ci taarix boobu Sénégal tegu ci organisation unité africaine mm-hmm. et ci la fas yéene tegu wax na ko ci discours bu am solo boobu mu wax defe naa ni keroog le 5 février di ko ay naatangoom wóoloo ba teg ci kaw kuréel unité africaine li ñuy xaar ci moom nag e bare na barewul e bu njëkk bi mooy dossier yi nga xam ne tey jii moo e, nekk ay priorité Afrique moo gën gën ko dëgëral dossier yi mooy lan mooy NEPAD bi ma wax sànq dossier yooyu mooy li ñuy wax ZLECA mooy fexe ba réewu Afrique yi seen koom-koom daanaka nekk benn nit ñi di mën di dem di hmm. di ci wàllu commerce ci wàllu économie te du am benn mariage kooku def naa ne dossier bu am solo la yeneen dossier yi mooy ci wàllu koom-koom ak wàllu social ak yu demee noonu dossier yi nga xam ne nag tey jii bees na ci moom mooy dossier yi nga xam ne jóge na ci covid bi nga xam ni dafa lëmbe àdduna et di gën dal surtout ci réew yi nga xam ne dañu néew doole. Mhm. te réew yooyu ëpp nekk ci Afrique mooy fexe ba et ci wàllu social ñu fexe tey jii nu ñuy jàppalee askan wi ba gën taxaw. Mhm. te kooku defe naa ni wax na ci discours am ni Afrique ci droit de tirage spéciaux yooyu ñu de milliards de dollars Afrique fanweer ak ñett rek ci jot. Mhm. léegi nag gis nañ ni ak euh, juróomi at. Afrique soxla na lu toll ci deux cent cinquante deux milliards de dollars hmm. pour mën euh, am taxawaay boo xam ne dana ko def pour faj euh, sapaan nga xam ne Covid indi ko hmm. kooku aussi beneen dossier la bo xam ne président Macky Sall taxaw na ci beneen bi mooy ci wàllu jàmm ak euh, ci wàllu coup d'état yi ak ci Afrique hmm. kaaraange taxaw ci ba nga xam ne loolu dana ci dana ko dana a saafara bu mujj bi mooy task force bi taxawal nga xam ni nee na ci wàllu financement il faut que Afrique mu am xeetu financement yu bees te loolu nag pour mu am ko il faut nga am li ñuy wax benn agence de notation euh, des économies africaines nga xam ni africains yi seen bopp ñoo koy taxawal. Mm-hmm. ba may mujj nag mooy dossier fexe ba euh, conseil de sécurité bu Nations Unies. Mm-hmm. Afrique non seulement teew fa waaye mu am droit de veto. kooku daal mooy dossier yi nga gis nga bare na te xam nga lool ci benn at. Mhm. dana xaw jafe pour mën ko mën ko régler waaye mhm. nag eh, boo ko mënul régler aussi xam na ni président Macky Sall dama a xamee ci mën liggéey ci xereñ. Mhm. ak ci am rigueur am. et eh, bu ko saafarawul aussi parce que mënul nekk ci at. dana ko def loo ay njëg yu am solo. Mhm. alors ñu baral waxtu wi mi ngi ñuy dàpp euh, yéen club Sénégal émergent itam bari na lu ñu leen di dégg ngeen di def ay proposition ak di xelal euh, nguur gi président Macky Sall ñu koy xaar fan yi euh, nu mu gën a gaawee sax ci gouvernement bu bees gannaaw bu tabee premier ministre naka ngeen jàpp ni boobee gouvernement noonu la ñu ko war a tëggee mu méngoo ak li Sénégal di jànkonteel tey comme jafe-jafe xëy na ak càkkute fu askan wi. waaw gouvernement jërëjëf parce que maa ngi fàttali ni eh, bi ñu génnee ci fitna yooyu amoon ci mars deux mille vingt et un et eh, CREF Sénégal bokk na ci kuréel jëkk taxaw ni eh, nañu delloo ci premier ministre poste premier ministre et alhamdulilah rabbil alamin président na ni dégg nañu et poste premier ministre bi dellu na dellu si na assemblée voté na ko et puis premier bi na donc ñu ngi xaar xëy ci biir semaine bi mu nommé premier ministre foofu nag euh, euh, nommé premier ministre euh, pour mu faj jàngoro ak jafe-jafe yi nga xam ne ci la réew mi nag mooy ci wàllu social mooy ci wàllu économie mooy ci yeneen wàll yi nga xam ne ci la état di yëngatu loolu mooy mission bi njëkk bi nga xam ne moom lañ ko jox. Mm-hmm. premier ministre am na am na beneen mission aussi ci wàllu politique parce que ci réew yi nga xam ne ay démocratie la ñuy particulièrement ñuy wax parlementaire ak semi présidentielle ministre mooy ki jiite majorité bi et kooku nag dafa am politique boo xam ne def ko war aussi war a joué léegi nag et ñaari mbir moo a nekk soit léegi président dafa naan kat e, e, réew mi nekk na ci jafe-jafe yoo xam ne bi ñu ak njëg yi di yokk ak jafe-jafe dundu yu mel noonu nga xam ni ak gis ngeen yëngatu-yëngatu yu am fan yi ci syndicat yeeg yu mel noonu mm-hmm. war naa taxawal premier ministre boo xam ne xëy na liggéeyam daanaka loolu rek lay nekk mën na def euh, tànneef boobu wala mu e ci tànneef boobu aussi war na doon koo xam ni dafay boole loolu ak jiite suma majorité pour que élection législative yi nga xam ne dina am ci juróom-benn wala juróom-ñaari weer et eh, ñu mën ko gañe gañe bu bu baax parce que élection yi ñu génn naam benn Bokk Yaakaar moo am majorité bi ci réew mi waaye nag gis nañu opposition bi ci dëkk yu dëkku taax yi mm-hmm. am na ci percé yoo xam ne def na ko am solo kon nag ñaari choix yooyu moo am soit léegi mu jël premier ministre boo xam ne dafay nekk un homme d'état un technocrate pur et dur boo xam ne et dossier réew mi moom lay jël puus pour saafara yi nga xam ne moom la askan wi laaj wala mu jël koo xam ni xëy na dafay nekk loolu rax ci dool yi nekk un homme politique wala mu jël ko xam euh, mu def système koo xam ne dafay jël koo xam ne technocrate lay nekk taxaw ci mbiru réew mi ak keneen koo xam ne nag léegi moom mooy euh, nekk ci wàllu politique jëm fexe et euh, jàmmaarloo ak xaajaloo ak division yi nga xam ne amoon na ci majorité bi mu jëm fexe nu ko num ko nu ko réglé. Mhm. ba nga xam ne majorité bi dana mën dem ci élection législative yi. pour pour mën ko gën a gagné ci taxawaay bu gën a a a am solo. Mhm. yooyu élection yaakaaroon ni xëy na euh, cohabitation mën na caatu tukkee ndax opposition bi ni nga ko waxee euh, locales yi wane na boppam te itam ña ngay woote coalition bu mag ndax déggoo boobu bu sottee fogoon yi mën nañoo sonal xëy na majorité bi. Eh, waaw moo ko eh, euh, bon lu mënta nekk moom ci politique kenn kenn du ko wax ni nanga mënta nekk waaye nag. Euh, ci li ñu jàngat daal ci li nga xam ne am na li mu feeñal mooy tey ci réew mi ay la yowoon euh, malgré yenn dëkk yu mag benn euh, opposition bi jël ci réew mi benn Bokk Yaakaar am na ci majorité boo xam ni mu ngi ci diggante xëy na téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya wala juróom-ñett fukk ya xam nga kooku rëy na mm-hmm. tey gëw ma ni ci diggante juróom-benn weer loolu mën na soppeeku waaye nag dañ ne moom amul benn détail boo xam ni. Mhm. Euh, war nga ko sofental et li war tey jii majorité bi mooy taxawaay boo xam ni dañu war d'abord jubóo parce que li daal majorité bi yëpp maanaam benn bokk yaakaar mooy féewaloo ak xaajaloo ci ay bis. Mhm. waaye nag kooku ci élection locale maanaam gox élection gox yi xawul yomb ci parti euh, majorité boo xam ni. ëmb nga lu lu lu jege ay juróom juróom fukk ba juróom benn fukk parti hmm. et ci opposition lay xaw gën a yomb pour mu daje. waaye nag législative yi nga xam ne ci lañ jëm nga xam ne gox gu nekk gën jaa neew xëy na danañ fa tànn ñaari député et même bu fekkee ne am na ñaari ñaari tendance yoo xam ni ñoom ñaar ñëpp dañu naan ci nguur gi lañu ñu bokk et <laughs> jafewul lool hmm. da ngay jiital ki nga xam ne xëy na moo fa nekk majoritaire et ñi nga xam ne ay minorité la nga jël koo xam ne xëy na moo leen fay teewal. Mm-hmm. et jamono ñooyu comme ça ñëpp xam ni. et surtout ñooñu nag da nga leen def ci liste majoritaire parce que bu ñu bu ñu xeexee seen biir ñoom ñëppay daanu. Mm-hmm. voilà ba nga xam ni loolu nag la élection législative lay xew gën a métti. ci wàllu tànn parce que Yewwi Askan Wi wane na dooleem. Mm-hmm. waaye nag wàllu askan wi ñu fale te am na aussi yeneen groupe yoo xam ne ñu ngi ci opposition bi. Mm-hmm. te ñoom bokk yaa gëm sa bopp am na pa ñoom Pape Diop. ak mm-hmm. ak yeneen parti ak am na sax ay indépendant yoo xam ne. mouvement citoyen ñoom dañuy sampu ci élection législative mm-hmm. ba nga xam ni def benn liste opposition bi rek. Eh, du yomb incha allah jërëjëf Youssou ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yaa jiite Club Sénégal Émergent di itam PCA bu Sonacos SA jërëjëf eh, jërëjëf